cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall mi ngi gane àdduna ci atum 1856 ci dëkk bu ñuy wax Touré Atumaan nekkit ci tund wii di Njébbi Fall dëkk bii di Touré Atumaan maamam ju ñuy wax Atumaan Fall mooy ku ko sancoon ture Atumaan gi mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax ture ci suuf si di Kayoor kii di maamam itim bokkoon ci njaboot gii di njabootug dammel manoon na yilif lii di kayoor kon Cheikh Ibrahima Fall sëtu buur la waajuram wu jigéen soxna sey na bu Njaay lañ koy woowe waajuram wu góor sëriñ Ahmadu Roqeya Fall la tudd Cheikh Ibrahima Fall am na ñu mu bokkal kii di soxna bu Njaay ñu ràññee ci ñaari doomu aadama ak moom muy ñett ku ñuy wax maam saaliwu faal moo sanc dëkk bii di daaru xafoor ñoo bokk kii di soxna bu Njaay ak sëriñ Ahmadu Roqeya Fall am na kaneen ku jigéen ku mu bokkal soxna Saynabu Njaay te bokkuñu sëriñ Ahmadu Roqaya Faal mi ñu koy wax soxna Assu Jóob njóobeen ginnaaw bu soxna Saynabu Njaay liggéeyalee kii di sëriñ Ahmadu Roqaya Faal ba noppi dafa bàyyikoo woon ñëwaat nag ci njoobeenu belal wala ci dëkk bu ñuy wax belal Jóob ci kër sëriñ Abdu Xaadir Jóob am fa doom ju ñuy wax soxna Assu Jóob kon Cheikh Ibrahima Faal ñaar la bokk bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett soxna Astou Diop mi doomu soxna Seynabou Njaay la sëriñ Daaru Asan Njaay lañ ko joxoon mu am ci ku ñuy wax sëriñ Moor Astou Diop Njaay sëriñ Moor Astou Diop Njaay mi moo jur soxna Bintu Njaay Baay Faal mi ñu jox sëriñ Mustapha Faal Mbar bu sëriñ Moodu Aminata Faal Cheikh Ibrahima Faal bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram di sëriñ Ahmadu Roqeya Faal mooy ki ko dalal lii di alxuraan ginnaaw bi nag yóbbu nañ ko kër nijaayam di njare njare googu ci kër nijaayam eggalee nag lii di njàngum alxuraanam ak lii di njàngum xam-xamam ba gii yu fa lool ci wàllu njàngum alxuraan ak lii di xam-xam mu jóge njare kër nijaayam daa di delsiwaat nag fi mu cosaanoo di njébbi nekk nag ci ginnaaw waajuram wii di sëriñ Ahmadu Roqeya di ko liggéeyal ci diggante boobu nag la ko ko baax ki sëriñ tuuba Seexul Xaddiim feeñu muy wër nag ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim kon nag ma wax leen maam Cheikh Ibrahima Faal lu ko indi nag ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul xaddim ginnaaw bu mu jàngee alxuraan ci njare kër nijaayam ba mokkal lii di alxuraan delsiwaat nag ci ëttub waajuram di fi mu cosaanoo di njébbi faal ci kër waajuram sëriñ axmadu roqaya faal ci diggante boobu nag la ko seexul xaddim feeñu waaye nag muy wër lii di leer gi xamul fu mu nekk Cheikh Ibrahima Fall fu mu yaakaar ni nit ku baax ma nga fa dem na fa di xool ba xam kii mooy seexul xaddim waaw wala déet noonu nag ni la ko toppoo ba mu jigi mu dem ci dëkk bu ñuy wax tey ñuy wax Ahmadou Bamba Sill ma nga fa woon bu Tayba Ndakaar Ahmadou Bamba Sill mii nag waajuram mooy sëriñ Ahmadou Ndumbe Maar Sill moo kii di Mamor Anta Sali mi waajuru Xaadim Rasul ñoo jàngandoo ci sëriñ Ahmadou Bamba Sall bu Saalum bi ñu jàngee ba noppi keroog bi leen sëriñ Ahmadou Bamba Sall di yeewi wala di leen ñaanal ñu dem da leen dénkoon ne moom de macha allah xam na ne nitug yàlla la waaye nag ñëpp nekkul kuy siiw ci àdduna waaye nag ñoom ñaar ñi kenn ku ne da nga am doom joo xam ne nii daal dana siiw lool bu sañoon nag kenn ku ne daal nga jël sa kenn ci sa njaboot nga duppeeku ko noonee mu ko waxe woon kii di Mamor Anta Sali ni la ko Mamor Anta Sali defee ndax ni la jële kii di Xaadim Rasuul tudde ko Ahmadu Bamba Sàll moomu kii di Sëriñ Ahmadu Ndumbe Maar Sill noonu la jële kii di Ahmadu Bamba Sill moomu duppee ko ko kon ñaari Ahmadu Bamba yi ñoo bokk Ibrahima Fall nag bi muy wër Ahmadou Bamba Mbàkke ci Ahmadou Bamba Sylla moomu la njëkke ginnaaw ba mu fa demee nag ci dëkk boobu di ba ndaxaar ndax foofu la nekkoon def na fa nag ab diir di wër ki nga xam ne ni moom mooy Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim tegoon ko ko waaye daal xam na ne daal wuute naag lool leer gi nga xam ne nii moom moo ko feeñu ndax saa su ne leer gi mi ngi jolli te jolleewul ci kër Ahmadou Bamba Sylla moomu mujj gi nag Cheikh Ibrahima Fall bana fa kii di Ahmadou Bamba Sylla moomu di wër ku baax ki Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim dem na nag ci dëkk bu ñuy wax sànjara sànjara mi ngi ci wetu dëkk bii di bàmbay am na dëkk bu fa nekk bu ñuy wax njoos njoos googu ku ñuy wax sëriñ ma sàmba Faal ma nga fa ci tooli sëriñ Masamba Faal yooyu Cheikh Ibrahima Faal am na fa ab diir bu takkoo takku ndax ginnaaw gi jaaxle na te xamul fan lay wëre leer gi nga xam ne nii daal leer gaa ngi koy feeñu te xamul fan la nekk ndax fa mu yaakaar dem na fa ginnaaw bi na waat na ci dëkk boobu di njoos di wëriwaat ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi woon ci dëkk bu sell bi di mbàkke kajoor mbàkke kajoor googu nag xëy nañ suba kii di sëriñ tuubaa seexul xaddim yónni ku ñuy wax cheikh aadama géey ci sëriñ ahmadu bamba silla moom ak kaneen ku ñuy wax sëriñ maxtaar ture yónni ku ci beneen dëkk boo xam ne ni mi ci ginnaaw dëkk boobu di tayba ndaqaar ñoom ñaar nag ñu àndante ca yoon wa ba ci dëkk bii di tayba ndaqaar ñoom ñaar biñ jëm see ci dëkk bii di tayba ndaqaar booba maam cheikh ibrahima fall jóge na njoos jëm si ci dëkk dëkk bu ñuy wax sànjara sànjara mi ci diggante tey ba ndaqaar ak dëkk bii di njoos ak daqaar mang fa ci daqaar googu nag fi lañ fekk maam cheikh ibrahima faal làmp baabul mu muridina bisub keroog sànjara googu nag cheikh ibrahima faal gis na fa kii di cheikh aadama géey ndax keroog bi cheikh aadama géey di dem sëriñ tubaa seexul xaddim am mbubbam la ko solal ngir seera faal man koo gis keroog bi seera faal ne jàkk kii di cheikh aadama géey la jaayanteeg ak leer ma doon wër seen naa ko ci sa jëmm ji kon yow laa doon seet sëriñ Adama géey di ko xamal ne du moom waaye am na ku ñuy wax Ahmadou Bamba moo ko yónni mu ngi ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor ci la ko Cheikh Ibrahima Fall ne nañ dem nga wan ma ko Cheikh Adama Gueye di ko xamal ne dañ koo yónni waaye na ko xaar foofu su dëppee dana ànd ak moom ba yóbbu ko ci dëkk bii di Mbàkke Kajoor bisub keroog am na ñu ne fukki fan ak juróom benn la ci weer wii di weeru koor am di weeru koor waaye daal li wérte wér mooy kii di maam cheikh ibrahima faal ak sëriñ tuuba seexul xaddim gisee wuñ seen gise bu njëkk ci ñaar fukki fan ci weeru koor lu ko jiitu moom gisee nañ bis bii di ñeent fan ci weeru koor xalifaam bii di sëriñ cheikh jëmbu faal mi ngi koy màggal ci ndigalul sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke ndax kat bis boobu lañ jortu ne moom la cheikh ibrahima faal njëkk a gisee ku baax ki xadimu rasool waaye ci ñaar fukki fan yi moom ci la ko seexul xaddim nangule tax mi ngi koy nettali kii du cheikh Moussa Ka ci wolofal bi ko cheikh Moussa Ka defal cheikh Moussa Ka ma ngay wax ne maam cheikh Ibrahima faal moo ne ko suñ boroom mi ko bind moo ne ko Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe cheikh Moussa Ka ma ngay gën a leeral ne cheikh Ibrahima Fall moo ne ko ñaar fukki fan la ci weer wi di weeru koor ci la ko xaadim rasool di dooga nangul lii di ak njébbalam ci dëkk bu sell boobu di mbàkke kajoor waaye mook seexul xaddim nekk nañ mbàkk kajoor lu jiitu ay fan ci seexul xaddiim naan ko du fi ba ca ñaar fukki fan ya xaadim doog ne ko ale yéwén man la kon foofu ci Tayba Ndakaar kii di maam Cheikh Ibrahima Fall ànd na fa kii di Cheikh Adama géey ak sëriñ Maxtaar Touré ñu jóge ba Ndakaar ñibbisi waat ci dëkk bu sell bii di Mbàkke Kajoor keroog bi ñu demee ba jub lii di Mbàkke Kajoor nag Cheikh Ibrahima Fall leer gi mu doon gis ci Cheikh aadama Guèye ba toppoon ci gis na leer gu ko gën a kawewaat ci kanamu Cheikh Adama Guèye di mbàkke kajoor mu ne cheikh aadama géey leer gi ma doon wër te gisoon ko ci sa jëmm jiide mujj naa ko séen ci sama kanam daa di waaxu nag jiitu kii di cheikh aadama géey ci dëkk boobu di mbàkke kajoor waaye bi mu eggee taxul nag mu gis ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bi cheikh aadama géey egsee nag nu nuyoon teg ku baax ki seexul xaddiim wax ko la ko seexul xaddiim yónni woon ci ahmadu bamba sill moo ko itim li ko ahmadu bamba sill tontu ci xaadimu rasuul seexul xaddiim laaj na ko ba xam àndut ma ngi koy xamal ni ànd naag benn waay kay bu koy seet seexul xadim nee na ko na egsi ginnaaw bu ko cheikh aadama géey waxee ne ku baax ki xaadim rasul nee na nga egsi ba ñoom ñaar ñu gisee nag keroog Cheikh Ibrahima Fall xaadim laaj na ko naka nga tudd mu ne ko yab sa xànc faal laa tudd seexul xadim di ko wax ne ibrahima de moo gën lii di yab sa xànc kon tur wi di ibrahima bisu keroog la ko ko seexul xadim tuddee ginnaaw bi itam seexul xadim laaj na ko lu nekkoon say tànk tànk maam Cheikh Ibrahima Fall di ko xamal ni dama toppug leer ba mu sox ci sa jëmm ji te leer googu nag laa doon wër ma fas yéenee nag comme gis naa sa jëmm ji di jaayanteeg yow Seexul Xaddiim di tontu keroog maam Cheikh Ibrahima Fall di ko xamal ni ak leer moom sowe wut ci sama jëmm ji Cheikh Ibrahima Fall keroog ma ngay wax Xaadim Rasuul di ko xamal ni yow de taxoo maa jóg waaye leer gi ma topp ba mu soowe ci sa jëmm ji bis boo mu wanaatee faneen fu mu fenke ma dem bala fi fi mu sax wax kii di maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko lii di leer gi daal soowi wu fi booba na xaadim rasool mi ngi xool ba xam ka nga xam ne nii moom la doon sàkku ci suñ boroom mu jox ko ko kooka la waa wala déet waaye mujj gi nag xam na ne kii di Cheikh Ibrahima Fall la keroog ñoom ñaar bi ñu njëkkee gisee laa la wax am na ñu ne ñeenti fan la ci weer wii di weeru koor waaye am na ñeneen ñu ne fukki fan ak juróom benn la ci weer wii di weeru koor en tout cas daal li wér te wér mooy seexul xaddim ak kii di maam Cheikh Ibrahima Fall toog nañ Mbàkke Kajoor ay fan fan maam Cheikh Ibrahima Fall làmp baabul diina di ko wax ni leer gi ma topp ba mu dugg ci sa biir kër gi bis boo ma wanee fu mu génne ma bala fi dem seexul xadim di ko wax ne ak leer daal toppoo ko ba mu dugg fi kon nag leer gi du fi ci loolu daal ñoom ñaar ñu nekkoon mat na ci diiru ñeenti fan wala ci diiru fukki fan ak juróom benn tombeeg nag muy ñaar fukki fan ca weeru koor wa ci la ko seexul xadim ne ala yéwén nag li nga doon wër mi ngi fii loo fiy sàkku te amoo ko ci yow la maam Cheikh Ibrahima di tontu xaadim rasul di ko wax ni lu mu fi wut te awma ko itam yaa ma ko yéenewul ca pas boobee daal ak ngor googee daal lañ mujj jaayante ñoom ñaar Cheikh Ibrahima nag di ñeen fukkeelu taalibeeb xaadim rasul mu wéy nag nekk Mbàkke Kajoor ginnaaw bu mu jaayante ku baax ki xaadim rasul ba noppi bokk nag ci ñeen fukkeelu taalibe seexul xaadim toog na fa ab diir foofu ci Mbàkke Kajoor bàyyi koo fa delsiwaat nag ci dëkk bu sell bi di Mbàkke Bawal ngir ngir sànc si dëkk bii di daaru salaam cheikh ibrahima fall ànd naag moom lii di dëkk bii di daaru salaam cheikh ibrahima fall bokk na ci ñi ko gor dëkk bu sell bii di tuubaa itam maam cheikh ibrahima fall bokk na ci ñi ko gor cheikh ibrahima fall di liggéey di jox xaadim rasul nangul ko def ko ab sëriñ ba ci atum 1891 at moomu la cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke moom sëriñ tuubaa seexul xadim gane lii di àdduna ci fukki fan yaak juróom ñaar ci weer wii di weeru gàmmu di ci ngërëmam bisub fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmm ci atum 1891 moo dëppoog bisub talaata fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmmu ci atum 1309 ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmm ci atum 1309 ci gàddaay gi dëppoog muy mardi 20 octobre 1891 mardi 20 octobre 1891 maam Cheikh Ibrahima Fall jot ngërëmam ci ku baax ki xaadim rasool ci dëkk bu sell bii di Touba mu delluwaat nag ci dëkk

dëkkub cosaanam ñu teg ci lu tolloog ñetti at wala lu tolloog ñeenti at muy atum 1895 dib samedi fukki fan ci mois d'août ci atum 1895 di gaawu fukki fan ak juróom-ñett ci weer wii di safar ci atum 1313 ci gàddaay gi tubaab bi woolu kii di cheikhul xadim ci dëkk bii di ndar géej booba cheikh ibrahima fall mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax tugg tugg mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax ndaay ndaay mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax gànjool ci suuf si di ndar géej foofu la maam cheikh ibrahima kon bi sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci géej gi fa la nekkoon itam ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim jógee ci géej gi bi mu nekkee ci dëkk boobu di tugg nag am na taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu doon wax sëriñ mbayloo loo sëriñ mbay loo maam Cheikh Ibrahima Fall joxoon na ko ndigal ngir mu dem Cees sanc fa dëkk bu ñuy wax Madina Cees Madina Cees googu itam Cheikh Ibrahima Fall daana fa dem kon bi sëriñ tubaa seexul xaddim di ñibbisi ci le 11 novembre 1902 kii di maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ci diggante bii di tugg nekk ci wetu ndaay ci suuf si gànjool ci ndar géej ak fii mu sanc loo woon taalibeem bii di sëriñ mbayloo di madina Thiès ci atu 1897 sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi ci dëkk boobu di gabon maam Cheikh Ibrahima Fall wutoon na ay addiya yónni woon taalibeem bu ñuy wax sëriñ Abdoulaye Ndour sëriñ Abdoulaye Ndour sax keroog bi muy dem gabon di yóbbu addiya yi ci la yóbbaale sax kaamilub Cheikh Modou Moustapha Mbacke ngir di ko wax ne sa doom ji nga fi bàyyi woon kaamila ma ngi nii bi ku baax ki ñibbisee ci atum def na nag comme ni ko seex sépp defee ñëw ziyaare si ku baax ki xaadim rasuul ginnaaw bi nag la delluwaat foofu mu nekkoon ginnaaw gi itim daana ñëw daaru marnaan gii seexul xaddim nekkoon di gane kii di maam Cerno Ibrahima Faati foofu sax la ko seexul xaddim joxaati woon ndigal mook maam Cheikh Anta Mbàkke ngir ñu dem jëndal ko lii di ay lal lu tollu fukki lal ak ñaar kër biñ ko jëndee ndar géej ba di ko indi la leen agent secret bi di Demba Ngari gis ñëw dem ci mbaaxaan mi secret wu di ko wax ne kii di seexul xaddiim daal gis naa mu sëflu lii di ay ngànnaay xam naa ne jihaad lay waajaat kon lal yooye Cheikh Ibrahima Fall jëndoon ak kii di maam Cheikh Anta Mbàkke ca coow loole nag ci la coow lu judduwaat ba yóbbuwaat kii di seexul xaddiim ci beneen résidence surveillée ci dëkk bii di gànnaar jaareele ko nag ci kii di mbaaxaan ak pël bii di dem Demba Ngari seexul xaddiim dem gànnaar ci atu 1903 ba 1907 gànnaar googu Cheikh Ibrahima Fall dem na fa tolloo ñaari yoon jàpp dëkk boobu di gànnaar ginnaaw bu fa xaadim rasul nekkee ci résidence surveillée wala laata cheikh ibrahima faal di dem gànnaar lii di ay yónneen sax daana ko def ndax am na benn bis mu yónni taalibeem bu ñuy wax sëriñ asan caam ci gànnaar googu ab junni la ko joxoon lii di addiya tombeek na sëriñ ma siise ndongo moom itam bayoon ci dëkk bii di xàbbaan nawetu keroog ab dërëm la ca am keroog bi sëriñ ma siise ndongo mi di indi addiyab dërëmam bi tombeek Caam mi àddiyee junni bi keroog seexul xaddim woote woon na ci gànnaar xaadim rasool mi ngi wax ni ki joxeeb dërëm ak ki joxeeb junni ñoo yem ca buur yàlla ndax kan ñoom ñaar ñépp la buur bi tabaaraka wa laa di fay ndax yéene moo ko jëf ñoo tolloo ak pay laata gànnaar googu sax seexul xaddim jaar na ci dëkk bi di dagana ndax xam ngeen ne yoon woowu sëriñ Tuubaa seexul xaddim doon demee gànnaar ginnaaw bu mu jógee daaru marnaan jaar na ci dëkk ñuy wax mbàkke jaar na ci dëkk bu ñuy wax saaw ginnaaw saaw jaar na ci dëkk bu ñuy wax ndiliki ndiliki foofu sax la giseeg seex Moussa Ka ginnaaw bu mu ko fekkee ci jàkka ji wooloo ko kii di waajuru cheikh Moussa Ka ginnaaw bi nag la fa jógee dem ci dëkk bu ñuy wax kànka ginnaaw kànka nag la dem bayti ginnaaw bayti nag la fa jóge ñëwaat ci dëkk bii di ngaabu ginnaaw ngaabu la jaar dala ginnaaw dala ture ginnaaw ture ndula ginnaaw ndula nag la fanaani njaareem ginnaaw ñuy wax tuun maam cheikh anta mbàkke sax tabax na fa kër ñu koy wax tuubaa tuun ginnaaw bu mu yendoo foofu nag la dem fanaani ci dëkk bii di tiwaawoon kër sëriñ ma rubba géey la fa fanaan foofu ci tiwaawoon ginnaaw tiwaawoon la xëy dugge fa saxaar nag dem ci dëkk bu ñuy wax kel ginnaaw kel googu nag fa la yendu gonte fa dem ci dëkk bii di ndar géej ginnaaw ndar géej nag am na fa ay fan ndar géej googu nag la jëlewaat lii di gaal gu ko yóbbu ci dëkk bii di dagana seexul xaddiim jaar jóge ci ngan gim amoon fii ci daaru marnaan ginnaaw bi nag la ko dem ba ngari tuumaal ci ay lal yum jënduloo woon kii di maam cheikh ibrahima faal ak kii di maam cheikh anta mbàkke dem ba ngari dem ci kam doon secret wu di mbaaxaan di ko xamal ne kii di xadim rasool gis naa ko mu sëf ay ngànnaay kon ci coow loolu la demee gànnaar ba muy dem gànnaar jaar na ci dëkk bii di dagana bisub keroog bi mu eggee ci dëkk bii di dagana mi ngi wàcc ci kër ibrahima waalo foofu la seexul xaddiim wàccoon foofa itam kii di maam cheikh ibrahima faal yabaloon na fa ñeenti taalibeem wala juróomi taalibeem ngir ñu nekk fa ci ndigalul xaadim rasool ñu ràññe woon ci ku ñuy wax sëriñ momar géey sëriñ aliyun géey sëriñ moodu géey lambarna sëriñ ibrahima baasin ak ku ñuy wax sëriñ mustapha kan ginnaaw bi nag seexul xaddiim jóge na dagana dem ci dëkk bii di gànnaar gànnaar googu itam ginnaaw bu fa maam cheikh ibrahima faal yónnee asan caam ci àddi yëpp moom maam Cerno Ibrahima Faati la fa wooloo woon ginnaaw yoon woowu maam Cheikh Ibrahima àndoon nag kii di maam Cerno Ibrahima Faati ci yoon wu leen fa Xaadim Rasuul woowoon demaan na fa waneen yoon woo xam ne nii itam keroog bi muy dem dafa tombe woon ak Cheikh Sidiyal Moxtaar bu gànnaar soxla woon lii di ab junni junni boobu wër nañ ko gànnaar ba gànnaar daj waaye amul kenn ku mën a génne junni jox ko Cheikh Sidiyal Moxtaar mii ginnaaw bi nag la Xaadim Rasuul bindoon leetre ñetti seexam yi muy sëriñ Ibrahima Saar Njaañ cheikh ibrahima fall làmp ak kii di cheikh ahmadu ndumbe mbàkke di leen xamal ni nañ ko wutal kenn ku ne ab junni te ginnaaw ñu ko wutalee junni ba noppi nag bu fekkee na ñoom ñett mën nañoo ñëw ca yoon wa xayrun bu fekkee ne mënuñoo ñëw nag nañ ko dajale jox ko kenn mu indi ko waaye yoon woowee ñu mujjoon doon yóbbu addiyee junni joojee ñoom ñett ñoo ñëpp ñoo mujjoon ànd ci dëkk boobu di gànnaar keroog bañ fa eggee sax xaadim rasool berndeel na leen ci reer reer boobee këll mi ngi Ibrahima Sarr Njaañ ku fa dem ñu wan la këll ba mooy seedeb Cheikh Ibrahima Fall Lamp sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ ak kii di Cheikh Mbàkke ne dem nañ gànnaar te ñoo ànd ca yoon wa kii di Cheikh Ibrahima Fall wéy nekk Sénégal di xaar xaadim rasool xaadim rasool wéy des gànnaar googu ba atum 1907 ci 1907 nag la jóge gànnaar ñëwaat ci beneen résidence surveillée ci dëkk bi ñuy wax ca yéen jolof ca yéen jolof googu kooku di maam Cheikh Ibrahima Fall daana fa dem ay yooni ci xaadimu rasool ba ci atum 1912 mu ñëw ci dëkk bu sell bii di njaareem njaareem googu sax kii di maam Cheikh Ibrahima Fall daana fi seet si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di ko fi ziyaare si mu gi nag la dëkk moom ci njaareem googu sanc fa ab quartier bu tudd kër Cheikh Ibra foofu sax la génnee àdduna ci atum 1930 ñu indi ko ci dëkk bu sell bii di tuuba ci wetu kim doon liggéeyal di xaadimu rasool Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bi jóge na Cees nag ñëw dëkk si sanc fa quartier bu ñuy wax kër seex ci njaareem mu dend ak kër gu mag heure bu ko seexul xaddiim soxlaa woolu ko heure bu ko namee ziyaare si ko mu nekk nag lu ñu tudde ab baay faalam nangul ko nag daanaka lu ko kenn nangulul ci yoon wi ba tax Cheikh Ibrahima Fall ràññeeku lool ci yoon wi njaareem googu sax kii di maam Cheikh Ibrahima Fall sosaat na fa yeneeni gox ci dëkk bu sell boobu di njaareem muy quartier bu ñu tudde Merina ci njaareem ak quartier bu ñuy wax Kara Lol mi ngi ci njaareem sanc na yeneen i dëkk ñu ràññee ci dëkk bu ñuy wax Gébbu Faal Tuubaa Faal dëkk bu ñuy wax Daaru Bayre nekk ci wetu Cees amoon na itam lii ñu tudde ay daara ci dëkk bu tudd Ngongo amoon na itam ay daara ci dëkk bu tudd Guy Ngéen ak dëkk bii di Kër Ibra Yaasin muy def nag di yaraka jàngale di tarbiya ak di liggéey di yit ki ko defal lépp di seexul xaddiim fii di Mbàkke Bawal te lu ëpp ci njabootam nekk fi di quartier bi ñu tuddee Paaleen itam Cheikh Ibrahima Faal lamp sanc waaye moo jox ndigal sëriñ Moustapha mu ñëw nekk fi taalibeem wala ab seexam bu ñuy wax sëriñ Moodu Mbooj mooy ki fi nekkoon wala mooy ki ko sanc ci cosaan ginnaaw bi nag la jox doomam ji kii di sëriñ Moustapha Fall mu ñëw dëkk ak kii di sëriñ Moodu Mbooj faaleen gi nga xam ne nii moom moo nekk itam ci dëkk bu sell boobu di Touba kii di maam Cheikh Ibrahima Fall musta nangoo dëkk lii di Touba ndax kat dafa jortoon ne ku dëkk ko yaakaar bu yàggee nga miin ko te miin kat bu ca duggee nag bu yàggee nga yàpp ko moo tax daal fu Seexul Xadiim mësa dëkk mu sori ko moo tax itam doon na sàkku ci njabootam ñu dëkk lii di mbàkke bawal def nag lii di mbàkke bawal ak cumbukaay heure bu leen njabootuk seexul xaddiim soxla ñu mën a dem léegi egg ci ñoom waaye nag taalibeem bu ñuy wax sëriñ ababakar ndaw di waajuru bay cheikh ndaw baay faal moom la kii di cheikh mamadul mustapha mbàkke joxoon suuf ci tuuba ñu di ko wax guy ndaween ginnaaw bu mu demee ci maam cheikh ibrahima di ko wax ne taawub seexul xaddiim ba jox na ma lii di suuf ca tuuba cheikhul xaddim munuma ci dara ginnaaw bu fi kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke jógee nag ba kii di cheikh mamadul faadal mbàkke toog lii di xalifa la jox doomu maam cheikh ibrahima faal bii nag lii di suuf su takku ci tuubaa ñu koy wax sëriñ alin Fall Mbawoor sëriñ Alioune Fall Mbawoor moomu nag daanaka Baay Faal bu am suuf ci dëkk bu sell bii di tuubaa rawatina ci quartier boobu di paaleen moo la ko jox ndax Cheikh Fallu moo ko ko jox kon paaleenu Touba itam ci loolu la ci ginnaaw ku baax ki liggéeyal ba noppi koo gis nag ci le 19 juillet 1927 ñu jële seexul xaddim njaareem indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba ginnaaw bi nag la Cheikh Ibrahima Fall jël léppam jox ko kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke di ko liggéeyal di ko tarbiya di ko xoole nag nam doon xoole waajuram di xaatimu rasul keroog bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di gaslu lii di raay bi Cheikh Ibrahima Fall ma nga ca woon ndax kat jortoon na ne xaatim rasul muy liggéeylu mbooloo mu takku itam jotaay bi kon ñetti at ginnaaw bi bu seexul xaddim làqoo nag la maam Cheikh Ibrahima Fall làmp baabul na foofu ci njaareem di kër cheikh la làqoo ñu jële ko fa nag indi ko Touba Cheikh Ibrahima Fall ku amoon relation la ak mag ñi toppoon Serigne Touba seexul xaddim koo ci tudd rek sopp pep seex ibrahima faal la woon doomu sëriñ tuuba seexul xaddim itim koo ci man di tudd rek sopp pep maam cheikh ibrahima faal la woon rawatina ñaareelu xalifab xaadim rasuul bii di cheikh mamadul faadal mbàkke atum 1963 ba ñu inauguré ko ci le 7 juin boobu kii di Cheikh Mamadul Fadal Mbàkke ab junni la teg wax ni képp koo xam ne nii xam nga sooroor bi kuñ ko tuddee wala nu mu tudd ma jox la ko boole kook nag di ree ree ju baree bari mag ñi kenn ku ne xalaat waaye kenn xalaatut woon ne Baye Ibrahima Fall la ma Cheikh Mamadul Fadal Mbàkke di wax ba ñépp daj kii di Cheikh Mamadul Fadal Mbàkke jëlaat ab junneem def ci poosam di leen wax ni Baye Ibrahima Fall laa ko tuddee mi ñi ngi koy màggal ndax njabootuk sëriñ Alioune Fall Mbawoor ñi ngi def juma ju jot ñu togg lii di ay añ ngir di ngénte waat tur wiñ tudde seen maam ja di kii di cheikh Ibrahima Fall làmp kon looloo waral juma ju jot waa kër sëriñ cheikh Fall Mbawoor togg lii di ay añ ginnaaw maam cheikh Ibrahima Fall Lamp baabul muridina bu mu nekkee liggéeykatub xaadim rasul bu ràññee ko lii di bind itim def na ko ndax bind na genn xasida guñ tudd jës bul murit kon liggéeykat la jàngkati tim la woon am na ay tur yu bari yuñ koy wooyee moom maam cheikh ibrahima faal kon ràññee nañ ci ay turam yàpp sa ci faal bi mu indi woon ci sëriñ tuuba seexul xaddiim ak tur wii di ibrahima wi ko seexul xaddiim tudde ak tur wii di làmp bi ko cheikh mohamadul faadal mbàkke tudde cheikh ibrahima faal am na nag luñ tudde ay cheikh ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ cheikh abdoulahi sëy sëriñ yamar mbay sëriñ maxtaar mbooc sëriñ abdoulahi yaqin jóob sëriñ moor ja njare sëriñ maxtaar ñang sëriñ sëriñ Modou Guèye Ndiaye sëriñ Abdoulaye Xaar Diop sëriñ Modou Guèye Warak ak ñeneen ak ñeneen ñu mu seexal moom maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi génn àdduna bisub talaata juróomi fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum 1349 ci gàddaay gi talaata juróomi fan ci weer wii di weeru tamxarit ci atum 1349 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 3 juin 1930 mardi 3 juin 1930 sant ci bi 9h jotee ginnaaw bu ñu jullee jee ba noppi ñu jëlee ko fa indi ko ci dëkk bu seel bi di Touba kii di sëriñ ndaam Abdourahman Lo mooy ki ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeel yu mag yi ci teewaayu mbooleem njabootu xaadim rësool bi ndax Baay Faal ba dem na Cheikh Ibra ay xalifaam nag nii la tëdd ci atum 1930 ba atum 1950 sëriñ Moodu Moustapha Fall mooy ki ko wuutu ñaareelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall 1950 1950 la ba 1953 sëriñ Mor Talla Fall mooy ki ko wuutu ñetteelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall catu 1953 la baatu 1975 sëriñ Abdoulaye Fall Ndar mooy ki ko wuutu ñeenteelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall catu 1975 la baatu 1980 Chérif Assane faal mooy ki ko wuutu juróomeelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall 1980 la ba 1984 sëriñ Abdou Sakkoor Fall mooy ki ko wuutu lii doomu maam Cheikh Ibrahima Fall yi nag yu góor yi jeex tàkk ci kaw suuf sët yi nag tàmbule wuutu seen maam ji sët bi njëkk a wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall mooy sëriñ Moodu Aminata Fall doomu sëriñ Moustapha Fall mi njëkk a wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall la atum 1984 ba atum 2005 ñaareelu sët bi wuutu kii di maamam mooy sëriñ Cheikh Jëmmu Fall doomu sëriñ Moustapha Fall la mi njëkk wuutu maam Ibrahima Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér 2005 ba nëg ni moom lañ ñuy xoole kii di maam cheikh ibrahima fall ñu koy ñaanal mu yàgg ci mbooleem njabootug maam cheikh ibrahima fall gépp ti suñ boroom aar ko sàmm ko ndax lii di bàyyi faalu gi kat sagub murid yi la kii di maam cheikh ibrahima fall am na ay bis nag yuñ koy fàttaliku ndax fukki fan ak juróom ñaar ci weeru gàmmu ci atum 1891 la jot lii di ngërëmam ci sëriñ tuuba seexul xaddim ci dëkk bu sell bii di tuuba am na nag ay taalibeem yu ko ko doon fàttaliku ci dëkk bële weeru gàmm ñuy fàttaliku bis bi Cheikh Ibrahima Fall jote lii di ngërëm bis boobu sax mujj nañ ko jëlee Tiwaawan indi ko fii ci jannatul maxwa ci fi ñu tudde Baay Faal ga mooy fi ñu jox njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ga surtout maam Cheikh Ibrahima Fall bii ñuy wax Sëriñ Basiiru Fall mooy ki koy maggal léegi am na baneen màggal gu ñuy màggale ci dëkk bële di Kaolack di ñaar fukki fan ci weeru koor di bis bi nga xam ne nii ci la ko Seexul Xadim nangule lii di ab taalibeem bis boobu itam am na sëtam bu ñuy wax Sëriñ Cheikh Xadi Géey moo ko doon màggal ci Kaolack njaboot njabootuk sëriñ Cheikh Khady Gueye ba nëgëni ñi ngi koy màggal muy ñaar fukki fan ci weeru koor am na beneen bisit bu ñuy màggal waaye bis boobu sax daanaka wàcceem lii di kaamil rek moo ci am mu ñeenti fan ci weeru koor mooy bis bi Cheikh Ibrahima Fall njëkk gisee ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim xalifaam bi di sëriñ Cheikh Jëmbu Fall mi ngi koy màggal ci Touba am na itam beneen bis bu sëtam bii sëriñ Cheikh Ndigal Fall di màggal muy bis bi Cheikh Ibrahima Fall génnee lii di adduna muy ñetti fan ci weer wii di tam xarit seexul xaddiim ba kër cheikh dul faadal duppee sooroor bu mag bi joxe katub ndogu ba yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi jeeyi xaadim rasool moom doon liggéeyal te yàggal fi ak njabootam ak ay soppeem ak képp ko